jugee nag tey si jaaykatu cuuraay yi ñu ngi seet si waat suñu beneen maman fii muy Lawbe suñu maman Lawbe Sénégal mère Koura Sow ñoo ngi fii mu ñëw présenté sër yi ndax li ma gis fii ah ëpp na yii xeetu sër ak yii xeetu fer maman nanga def. maa ngi bu baax. ñu ñaan na yàlla nangu ziar boole ñu ko sama nenne. lépp jaamu. lépp jaamu. maman xaw naa daanu. yii xeetu fer gis. dëgg la ñu baax rek. waaw dama gis nag dama gis ñu bëri dañuy dañuy dañuy yi dañ koo bëgg waaw dañ koo bëgg waaw lii lu muy def si néegu sëy sëy yi lii mooy téye jëkkër ak jabar hmm. boo déggee ñu sa waaj yii mhm. yii mooy koy ànd sa jëkkër yi ngay sol mën dañ koo bëgg nag. gis nga booy ànd ak sa jëkkër da ngay jàpp ba set da ngay sangu ba set nga jàpp ne man ñaan naa yàlla ndoom su góor su barkeel wala man ñaan naa yàlla ndoom su jigéen su barkeel bu la sa jëkkër fekk yaay fekk sa jëkkër te diggalal ba nga ne faax toog boo ne faax toog nga takk sa ñaari fer yi nga xam ne cosaan la ñaari fer yi dijj yi nga takk ko sa wadoo sa sëru naal naal yi daa jeex nga wadoo sa sëru naal yi teg si ñaari fer yi mooy ànd yi nga ràcc jox sa jëkkër loo ca ñaan yàlla yàlla la ko may te sëy bu takku lay doon boo jàqee ba jaaxle nga dem jàpp ba set takk sa ñaari feer ñaan yàlla ci sëy bi lu mu dëng dëng sëy ba day jubaat ndax lii moo amul tekki takk rek la waa sanguwaale yëpp la bëgg bañul dara waaw bañul dara. Ah, damay gis à chaque fois. Euh, suñu maman yi di ko takk. te waaw te xam nga te xam nga yii sax dafa am secret bu nekk ci biir boo amee doom ju góor. waaw ah, suy jongo nga dind si nga takkal ko. Ah, ok. suy jongu gàllaaj la suy jongu rek nga dind si nga takkal ko saay saay du ko mënal du tiit te tële góor bu ko daal. ok ok def nag la ñu bàyyi ay tëleeg yu kenn xamul. te bu ñu bàyyi cosaan cosaan moo yor lépp. ñun moom di duñ ko fa ñun askanu lawbe. dëgg la dëgg la. duñ ko fay ndax mooy suñu cosaan. waaye dégg nga gars yi naan feru lawbe dafa baax. ba bala ma ko koo xam sax nag. bul ko ñaan mu wadd rek ci laa dégg parce que damay gis ñoo xam ne tey feru law bi bu daggee gars yi dañ koy njëkkante dañ koy njëkkante ku nekk naan boo si amee benn per sax dëgg la nga def sa gàllaaj la wala dara la wala nga def sa sa poset rek wala nga def sa gars bëgg nañ faru law bi trop banque de law ba yàllaa ñu barkeel ndax ñun boo jimbatee garab muy bëgg a dee sax nga sàcc suñ sagar bi def ko ci billaay garab ga day dekki dëgg la ñun yàlla moo ñu ko defal ñun ñu xamoon suñu wëllu dañuy toog ñu ñuy siyaare ay seex lañu waaye nag benn bukki moo yàq bukki yëpp waaye ñun law yu baax lañu man day saw laa bàyyi saw fii ci marché bi am naa fanweeri am yàgg nga fi yàgg nga fi doom lañu gis nga kee di sama la dëgg la dëgg la rek lañu xam togg ba mu neex defar ba mu neex waxtaan ba mu neex jëkkër du xuloo du xeex du ngat-ngat góor goo neexal mu jox la la ca poosam góor biiram la am boppam naqam boo ko bégalee rek mu bégal soo ko bégalu nag mu seeti fu jàmm am yal na leen yàlla may jàmm amin amin amin ah loolu loolu neex na na bi mooy dox daje dox daje déggee moom lépp nga ci biir bu mhm. baax na xeetu baax baaxi cuuraay yëpp dañ ciy boole mhm. mélangé ko mu jox la ndox daja bi xam boo ko taalee ah damay ragal yow kenn du la taxal ah, wujju dox daje bi mooy dox daje yéen a koy defar ñoo koy defar ñoo koy defar ba mu saf mélangé ko defar ci xeetu baax baax yëpp maa ngay xeeñ te pareegul te pareegul jeeg <laughs> ji moom la ñuy war gisoo ñu ngi ci jaay suñu client yi nii nombre de vingt cinq mille déedéet kay ñoo ngi nii taxaw ñoom xam nañ xeetu ko. waaw waaw waaw. neex neex bëriwul 500 dong lay jar. te boo ko taalee mooy loolu. kontaan sa jëkkër. <laughs> bii mooy ban. bii mooy bantu càdd. bantu càdd. xam nañ ko jéeg nañ ko. xam rek. barke sama jëkkëru moo ngi nii suus lay def. Mm. ndànk ndànk lay jóg teg si ànd bi. muy bërëx tempo tempo rek. jaay naan kay. barke sama jëkkër moom. bii ban. yaa ngi ñëw suñu jéeg ji bëgg na. boobu mooy ban. mooy nàkk bi. déedéet kay. bii mooy nàkk jidda waaw boobu damay dégg gars yi di ko wax. dañuy ba jidda laalaw di ko wëri. déedéet kay. nit ñi dañuy jóge fu ne. Mhm. Dakar ak fu ne foo yaakaar rek. nàkk bi moo leen fi indi. ok. boo ko taalee doo am wuju. déedéet kay. ah jéeg ji wuy li ko defaree ba mu baax. Ah. miski def si lépp ba mu normal nice. da ngay bëgg rek. jéeg ji wuy leen jéeg ji wuy bi mooy jidda naq jidda waaw naq jidda damay dégg nag gars yi di ko wax nag damay dégg gars di ko wax mais xam la laa bëgg a laaj xam nga mooy ban cawm soos naa mooy soosu kaani déedéet kay soosu kaani ba war naa tàng de bii ñaareel xaritu jëkkëram waaw ñaareel xaritu jëkkëram ñoomam bii soos baa ngi nii. bii mooy soos bi. bu extraordinaire. maa la wax loolu ma garaawee nii. bii ku ko taal looy sentir. na damay ragal kay moom sa nga ne loolu nar naa weex de. xam nga soosu kaani si ceeb rek. bii moo raw nag. affaire la. tuuraayu ñaareel moom bii bii mooy. ah jidde bi ko moom. waaw xam nga aaw moom daa bëgg lu bëgg lu sedd. ñaareel bëgg lu métti foo bëgg lu métti. moom kay bu ñëwee da nga xëccoo sax. déedéet kay. léegi xam la laa bëgg laaj dafa am xam nga ñu ngi si période tàngaay. may laaj yéen yéen yéen jaaykatu cuuraay yi ndax tàngaay bi xam nga dafa war na am cuuraayu tàngaay ak cuuraayu sedd. wala dafa am ay déodorant yoo xam moom ngay utiliser si tàngaay bi wala moom nga xam nga cuuraay moom ñëpp xam nañu pour sedd sedd lay gën a dox léegi loolu la laaj ba xam. pour tàngaay moo ko tax a jóg. cuuraay moom seddaay lay gën a dox. période bi moom surtout rek gars yi dañuy mos mos rek comprendre parfum yi nag mooy gën a dox moo nekk nii moo si kaw. ah ya nekk nii si kaw. Ah, première dame. waaw am na fi excellence ak. mi ngi ne si koñ ba fële sa roq ba. ah ok ak daal mooy gën a dox si si tàngaay. tàngoor bi nii. Ah. ah yi tamit. lait de corps. lait de corps. waaw. nga def sa nuisé bu baax. nga diw sa roq-roqaan yëpp tàngaay bi nga jege. <laughs> loolu bëgg waay waay waay eh, eh, fii neex na de. ñàkk fee ñëw wóorul de. ay eh, xeetu baax baax yooyu mel ni bi. ay ñoom tàngal mante yi. <laughs> Oh, oh eh, bii. Ana Ndiaye lay wër. la. da koy duufal. marié yu bees. waaw ñu soog a dugg. yi. bagage yu célibataire xaa amu fi. man ma fi duggee ba léegi ay lu wax ah ñaareel ma ji dégguma célibataire nga xam day xëcc góor. ah yi xëcc góor bi waaw yi xëcc ana mu. wan yooyu noonu yu ndaw tamit dégg naa am na bagage yoo xam ne day yokk <laughs> dégg naa gars di ko wax yooyu anamu aji aji xeetu baax baax ma dugal fii de. ah mu ngi nii de fii de ku bëgg lu baax lu ne boo ko rombee taxaw. ah aji macha allah. jeeg bu bëgg lu baax daal doo romb rek dem. romb fi wóorul de. Eh, ñàkk maa xam wóorul. aji aji aji lii si kaw taabul bi lan la. man xeetu baax baax rek man xeetu baax baax xoola bii xoola bii palaat. bii moo tudd naan. bii mooy bëggal sa jëkkër. bii mooy bëggal sa jëkkër. say cuuraay say baax baax teg. rouge bi si nekk la mi ngi nii rouge bi tàngal la. tàngal da nga koy macc tàngal tàngal bi yaa ma gën a xam. <laughs> kenn moo koy mat. waaw mooy faram-fulaay ci diggu laal bi def ba mu baax. li màcc tàng bi di sexal monsieur. Hmm, loolu dina ma neex. lu vert lan la. lu vert di passi la de. di la. passi bi ëpp na. a karité mante baa ngi nii karité bu ñu liggéeyee ak mante dañ koy frotté woo dañ koy frotté woo massage sawaar bougie massage baa ngi nii kii da ngay taal bougie massage nga wax de bougie massage kii da taal ñu toq ci loxo di frotté monsieur bougie massage baa ngi nii euh, bi mooy daj gépp bi mooy daj bi machine massage machine massage kon léegi kenn maaseetul ak sa loxo moo ko yàlla tere xam nga ne xam nga ne lii lii lii ëpp na lii mu lay mu lay mu lay wee eh, déggal ma lii lii daa ma xew de ba léegi amatul bañ na loolu jóg na déedéet kay kenn maaseetul sa loxo huile de massage yu bari baax na fi tubarkalla macha allah bari na fi. huile de massage yi bari na. kenn masseetu sa loxo. machine massage yaa ngi nii am na deux roues am na quatre roues su waa monsieur ñëwee nga def ba mu baax. ñëw maase ko ba mu kontaan lu mu am dala ko yéene. góor boo ko wanee ne yëg naa la rek mu yëg. góor yaa ko mun a téye. am na góor ñoo xam ne nag neexuñoo téye mais góor ñi xam neex nañoo téye yaay dëggal sa ba mu bépp góor boo ko téye si biir rek du wuti fenn dara ko doo moom muy wuti li mu bëgg am na ko lan lay wuti fenn dara bee moom lan la ban ci bee may gis ndox mi di la ok Ikarium la moom la boo fayee lamp yi lal sa darab bu weex sànni say pétale de rose déggal lii xeetu baax baax bii ngay taal mhm. mu lay wan fi nga war a jaar bi lamp bu garaaw la bi boo fayee lamp ba taal ko déedéet kay monsieur day lii bi dafa rafet tey lii lañ leen indiloon tey ñu ngi woon tey marché ñëw seet suñu jaaykatu cuuraay suñu mama yi tey li ñu fi woon tey li ñu fi gis fii gis nañ fi tey bu ne gis nañ fi sër yu baax yi gis nañ fi cuuraay yi gis lem yeeg lépp tey li ma dégg tey fii amul fenn tey ñu Barzeng lañ ñëwoon maa ngi leen nuyu leen siyaar yéen ñëpp kontaan si yéen kontaan sama mama yeeg ñuy yombala liggéey bi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp baneen yoon ak baneen marché xaar leen ñu ngi ñëw léegi ak baneen marché tey marché zeng la woon baneen marché la merci beaucoup kontaan